asalaamaaleykum àddina asalaamaaleykum Gambia asalaamaaleykum képp kuy seetaan Sahel Network TV Aïcha leen xewalaat si biir kër gi rek seen programme business profile loo yëngu laa wax kon nag képp ku fi ñëw rek daf lu war a ànd li ñuy xamante ne moom la yëngu ma dalal suma gan bi moom tamit mu nuyoo wax leen moom mooy kan ñu doog a waxtaan asalaamaaleykum Mariama nuyu naa la. waaleykum salaam wa rahmatulah Aïcha kontaan naa fii seen studios yi di man maa ngi tudda Mariama Diom maa ngi jàngee fii si Gambia University of the Gambia laa jeexale mm-hmm. maa ngi doon major tourism and hospitality management um, ba tey in 2018 maa ngi ibbi woon business mm-hmm. benn tey ñu ngi ci ko am liñ def mooy dañ dee process ba pare preserve maanaam denca mm-hmm. uh, légume ak um, fruits yiñ dee lekka fii si biir Gambia di ko defaree si produit yu yànja yi nga gis si taabul bi waaw problème gi moom man moom dama si kontaan kon nag léegi <laughs> dañ dañ see waxtaan parce que looloo ñu tax a jóg parce que man moom nit ki lu muy yëngu rek la moom ma soxal su mhm. ma ma gis euh, nga ne coconut ball mhm. léegi man dama bëgg nga leeralal parce que bi <laughs> bëgg a yow nga leeralal gars yi su defee ñu gën a understand ok Aïcha coconut balls yi comme noo ko gisee mhm. um, because bari nañ di lekkantu te um, liñ dee lekka yëpp um, fii si réewi Gambia seetlu naa ne lu baree bari especially soo demee si supermarket yi mm-hmm. luñ jëlee si beneen réew la indi ko fii si réewi Gambia waaye fii yàlla xéewale lañu ay légumes yi nga xam ne ak vegetables yoo xam ne mun nañ koo use mm-hmm. um, pour defar ay product yi nga xam ne ñu ngi koo jëlee si yeneen réew fii biir Gambia mun nañ koo defar so benn si produit yi nekk si table bi mooy coconut balls coconut balls yi nag kooko rek laa ko defaree you noo jël meew def ko si jël sukur xam nga rek def ay salañ salañ rek fii africains moom mooy loolu <laughs> oh you know ñu mix ko defaral ko snack bu baax snack boo xam ne mun nga koo lekk any time of the day su fekkee ne dem nga ba fil ne ne sawaruloo rek comme energy balls you soo ko lekkee because am na sukur di nga xala sawaraat mm-hmm. you know am nañ gerte tamit groundnut cake bi boobu tamit dañ jël meew ginger you know ak yeneen products boole ko si defar ko nii ba mu rafet package ko mhm. ba pare tamit ñu ngi am kaani xam nañ ne Gambia Gambia lañu bëgg a <laughs> bu saf waaw loolu moo laa woon ne um, we are innovative we are diverse soo soo bëggee lekk xaalis nit ñi foog nga xalaat foog nga xalaat ba pare nga indi lu nit ñi bugga mhm. nit ñi dañ bugga spice especially fii si Gambia soo kaani is available mhm. dafa des si yow naka ngaa xelaatee ba indi product bi soo loolu moo tax ñu indi leen pepper sauce mun nga koo use pour marine you know soo amul appétit pour lekka tam mun nga ko say def mhm. pour nga mun a am appétit lekka ah loolu laa dee wax su ko defee njaayee ne jóobee ni ñu rey seen bopp rek <laughs> ah sooy mariner ganaar mm-hmm. yaapa ndawal loo mun a am rek mun nga ko si dee def sooy lekka tamit bugg a appétit mun nga koo lekka mm-hmm. ma ne jarutal sax ñuy ut ay vitamines mm-hmm. nañ jënd kaani afritis bi rek su ko defee jaama dem eh, ne ñooy rek ah waaye joomee ni ak njaayee ni nañ def nanka nga yi <laughs> ñoom ñooy yi ak sekkeen gis nga ko moom lekk rek euh, dee jotee sa raw matériel si pour nga mën a process sa production ok ah, suba bagage yi fi ma ko dee jëlee mooy syndicat ah, mhm. syndicat bi nekk Serekunda ba pare tam maa ngi amee supplier bi nga xam ne di jóge ba North Bank mhm. moom dafa am toolam fi nga xam ne foofu la dee jiyee kaaneem bi soo su ko defee man su ma soxlee bagage yi rek dama ko dee kool mu indil ma mhm. um, su ma amutee moom moom su amutee dama dee dem syndicat ah, te su ma dee tànn nag dama si dee taamu jigéen waa waaw dama dee taamu jigéen yi because jigéen yi <laughs> uh-huh. ñoo amee kër yi ñooy soona si seen doom yi di struggle so te man tamit jigéen laa bëgg naa li leen dooleel mm-hmm. moo tax ma de ginna si gars yi you so su ma amutee ba amut si laa dee dem nag si suma xarit yi nag si <laughs> góor yi waaw. kon nag ñu ne jàppale sa bopp ba pare balaa ngay jàppale. jàppal keneen exactly moo tax nga fal jigéen ñi waaw noonu la kon nag ci kàllaama jigéen ñi Gambie. waaw Mariama comme que man suma producer bi moom mu ngi naan time bi xoj nañu léegi dañ ko fee emale rek ba beneen xam naa ne di nga dellu si na parce que question ci ma amee sax a bari so su ma dellu mu gën fee ne bye bye viewers xam naa we will come back. suñ programme business profile maanaam looy yëngu don't forget to subscribe like and leave your comments Aïcha leen teewalaatoon si biir kër gi rek joxaan leen di daje Mariama dina dellu si waat bye